xanaa du moo ñu ne astajib lakum ñaan leen ma ma may leen moo ñu ne wa in tauddu nicmatullahi laa taxsuuha bu dee dangeen nekk fi dinaan da ngeen di géema lim xéewal ya nekk fa yàlla du ngeen ko mën a matal waaye xéewal ya leen yàlla defal du ngeen ko mën a dajal li fi nekk doomu aadama daal ñaari jikko yamu làmboo mooy melokaanam ba tax na aaya bi jeexee inna al insaana la zaluman kaffaar doomu aadama bi dadi ku dëkkee di tooñ boppam waaye dadi jëmm joo xamante ne daa nekk di weddi xéewalu yàlla ya ko yàlla xéewalal nga déggee ci maanaa aaya bi doomu aadama ba dëkkee di tooñ boppam moo ne yàlla nee na ñaan ma ma may la nga dumóoyu di ñaan yàlla yaa ngi tooñ sa bopp waaye na doomu aadama nekk di widdi xéwalu yàlla yi moo ne yàlla yënkeewal na la loo xamante ne xëñ na ko sa morom waaye gisoo xéwalu yàlla woowu ci sa jëmm ji ba na yaa ngi naan yàlla defaluma dara ah su ko defee nga bañ sant xéwalu yàlla ci sa jëmm ji moo ne buur yàlla defal na la loo xamante ne xëñ na ko sa morom te loolu da ko war xoor xool da war a gis danga ko war a bàyyi xel ba tax na nga war a sant yàlla ñàkk settantal woowu mooy doomu aadama bay wedd xéewalu yàlla ñàkk settantal woowu kooku mooy doomu aadama boo xamante ne daa salfaañi xéewal ya ko yàlla xéewalal moo tax yàlla ne doomu aadama de ñaari jikko yi loolu melokaanam la nang ko jëflanteeg man ñàkk kaa def mooy tooñ sa bopp yàlla ne ñaan ma ma mee la nga bañ kaa ñaan yaa ngi tooñ sa bopp yàlla ne ñaan ma ma jox la nga bañ kaa ñaan di ko ñaan leneen di ko sàkkoo feneen ak ci neneen ndax ki fi nekk bañ a ñaan yàlla lanka war a ñaan amaana seytaane dina la orienté nga di ko ñaanee ci keneen wala ci feneen wala ci neneen lu wuuteeg la la yàlla wax ni ñaanee ma ko nii kon ñàkk a yàlla ba nga di ko ñaanee neneen walla feneen walla ci keneen loolu tooñ sa bopp la waaye kafaar doomu aadama bi nekk di weddi xéewalu yàlla mooy lal yàlla jox xéewal yanni gàññ waaw mu xañ ko keneen ñàkk a xool ki kim xañ te mu jox la ko ñàkk kaa sant ci loolee loolu muy weddi xéewalu yàlla te ñaari galan yii la doomu aadama bi rango mu di ko doxe ba tax na ñun ñu koy ñaan di ko ne allahumma inna nasaluka lisanan shakiran zakiran yal nañu yàlla may làmmiñ bañ lay tudd di la sant saa su ne waaye yàlla nga ñu may xol balay fàttaliku làmmiñ bi di ko tudd saasu ne amin ya rabbal alamin yal nañu yàlla boole ci ñu koy sant ci xéewalam yal nañu yàlla boole ci ñu koy sant di ko fàttaliku saasu ne ci xéewal yam ñu defal mu bañ ñoo boole ci ñiy weddi xéewalam yi amin ya rabbal alamin mbokk yi xam ngeen ne ñu ngi ànd nag yéen ci suñu thème bañ leen di waxtaanal ci waxtaanu fajar bi fii ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi ah, ñu ngi yemoon nag yéen ci xadis ba yonent bi ne doomu aadama bu laxoo bu dëddoo bu génnee àdduna wala bu mu faatoo jëfam mboolem seen dinañu dagg bem des ñitti jëf mu ne ñu sarax bi mu fi bàyyi muy wéy képp ku si jëfandikoo yiw woowu da koy fekk faw fu mu tëdd walla xam-xam bi mu fi bàyyi képp ku jëfandikoo ci xam-xam woowu njëriñ ba ki ko jëfandikoo fàggu ci xam-xam woowu yiw woowu da koy fekk foofu mu tëdd yow mu fi bàyyi xam-xam bi waaye yow mi fi bàyyi tuut tànk boo xamante ne dalay ñaanal allahuma axfir li wa li walidaya allahuma axfir lahuma warxamuhuma wa aafihuma wa afu anhuma wa kirim nuzulahuma wa washi madxalahuma waxsilhuma bilmaai walsalji walbarad ñaan bi ni mel yàlla nga jéggal samay ñaari waajur yàlla nga yaatalal leen seen wàccuwaay yàlla nga leen laabal ndox bu sedd ak galaas bu sedd guyi bay raxas mboolem lu takk ci seeni jëmm ci xeetu bàkkaar xeetu ñaan wii képp ku koy ñaanal sa wéyjur ñaan woowu ak li buur yàlla da koy yeggee ci sa ñaari wéyjur yi waaye dafa fekk ne nga tànnal sa doom sàkkukaayu xam-xam boo xamante ne fa la mën a jànge ñaan bi daa fekk ne nga tànnal sa doom sàkkukaayu xam-xam bi nga xamante ne falay lay xamee la yonent bi tegtal ne doom ju baax ju fi wuy juru te mu xamal ko xam-xam alquran ak njàngale yonent bi kooku moo mun a ñaanal wuy juram li ñu ñaan nii waaye dafa fekk ne wuy bi tànnal doomam ka koy xamal xam-xamu alquran ak njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndegem lii nga bëggal sa doom ba tax na bàyyil xel foo koy yóbbu ngir mu sàkku fa xam-xam bi nga xamante ni ëllëg boo fi jógee ko doom boobu yonent bi joxoñ ne mooy waladun saalih yadu la doom ju baax balay ñaanal xamal foo koy yóbbu ak ekool ba nga koy dugal ngir mu war a mën a xamee ñaan bi nga xamante ne mooy duaa uli waaliday ñaanu ñaari waajur bul xool diplôme yi muy am bul xool note yi muy am bul xool privilège yi muy am après ndax jamono tollu na foo xamante ne tànnal sa doom mu di doxee ñaari tànk muy li gën mu di doxee benn tànk ñaari tànk yi nag mooy xam-xamu àddina ak xam-xamu àllaaxira te mooy xam-xamu diine waaw bu bii sooxee mu mën a jëfandikoo fii yàlla ñaari yëpp bañ a sooxee muy dox ak ñaar ñi waaw mu xam lii nii la mu xam lee tamit nii la su ko defee ñu xool la boroom xam-xam yi composé anwaa ul abnaa u xamsa ñu ne melokaanu doom yi juróom lañu juróomi melokaanu doom moo am moom la wuy jur bu nekk di meññ ñu ne anwaa'ul abnaa'u xamsa juróomi melokaanu doom moo fi nekk moo xam doom bu góor melokaanu juróomi doom yooyu nag ki ko bëgg a xam nag ñu may nopp fii ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji ñu ànd ak yéen tegtal leen la nga xamante ne mooy juróomi melokaanu doom ya boroom xam-xam yi joxoñ ne ñoo fi nekk di dund ci société bi moo ne njëlbeenu melokaan bi mooy doom joo xamante ne laa yafaal ma yaamaruhu bihi waaliduhu doom joo xamante ne moom du musa def la ko juróom yi sant waaw ñu ne fa huwa fa haada aqun ñu ne kooku mooy ku déngee ñaari woy ñu ne doom bu njëkk bi mooy koo xamante ne moom du musa nekk du musa def du musa taxaw du musa dugg ci lu ñaari wuy juróom yi sant ñu ne fa haada aaqo ku dëngee ñaari wuy juróom bilaa saq waaw bilaa saq ñu ne kooku amul benn sikki sàkk ne kii mooy ku dëngee ñaari wuy juróom yi waajur bi nee na fii la nga ne dee du fii fële la ñu ne kooku mooy ku dëngee ñaari waajuram waajur bi nela benn nga ne ko fukk ñu ne kooku mooy ku dëngee ñaari waajuram moo tax mu ne ahaduhum kenn ci ñoom mooy laa yafalu maa yaamuruhu bihi waaliduhu kooku du def lakk ko waajuram yi sant ñu ne kooku mooy doom bu dëngee ñaari waajuram moo tax mu ne fa haata aqun kooku mooy ku weddi ñaari waajuram ci lu amul benn sikki nag ñu ne ñaareel bi mooy yafalu maa yu'maru bihi wa huwa kaarihu ñu ne kooku mooy kiy def la ko ñaari waajuram yi sant waaye da koy def ak tayal ak ñakk pexe mu am mbañeel ak sib bu tollu ni yéen ma koy defloo mais man de moom bu doon sama sago moom du ma ko def waaw mu ne fa haada laa yujar inchaa allah ñu ne kii moom du am peyor lenn ci loolu muy jëf la ko ñaari wuy juróomi jëfloo ndem soob na yàlla du ci am benn peyor waaw kooku day jëf lu ko ñaari wuy juróomi sant waaye bu koy def da si ànd ak mbañal bu toll ni ñàkk pexe la rek amaana yet bu ñu teg la ñu ne ko boo ko deful dinañ la dóor amaana dañoo kepp téléphone bi ñu ne ko boo ko defut duñ la jox sa téléphone ndax téléphone jamono ji ni mu mel boo buggee toroxal sa doom moom na nga saisir téléphone bi léegi mu taxale ko sa ko waaw <laughs> ndeysaan oustaz sàmb ñu ngi koy sant di ko gërëm ndeysaan ci madrasatu Falah Kolobaan Kirok dane am na élève bu ñu saisir téléphone ndax dañ kaa bett muy xool téléphone am ci classe bi ñu saisir ko waaye nag euh, fu mu mujjeek ak élève bi mooy élève bi dalee ne jox leen ma sama téléphone ma tàqale kook seen école xoolal kii téléphone fu mu ko ak allahu akbar keroog bu mu ko doon wax haa man fi ma toog ci jàkka ji keroog la ma sentir sama biir xol yàlla rek a ko xam yow ñu jox la école woowu ngir nga faggu fa xam-xam ñu jox la waa école wi ngir ñu def si yow xam-xam ñu bett la ngay xool sa téléphone te bokk na ci règlement école bi kenn du dugg ak téléphone ci école bi waaw keroog yow nga dugg ak sa téléphone école bi ñu saisir sa téléphone téléphone àgg fa yow foo xamante ne dangaa jébbal sa bopp ne leen jox leen ma sama téléphone ngeen dàq ma allahu téléphone àgg na kooku foofu est kooku li mu war a xam ci école boobu téléphone bi mën naka kaa jox tontu bi mooy déedéet wallahi bu ko téléphone bi mënee jox loolee ni konte way juróom yi duñ ko dugal ci école waaye téléphone bi mënu koo servir xam-xam ba mu war a jël ci école bi moo tax ñu yóbbu ko ci école mu violer règlement intérieur école bi ñun narkaa teg daan mu jël xam-xam gam-gam le ko téléphone mu tànn téléphone bàyyi xam-xam ba mu ko jaral ne leen jox leen ma sama téléphone ngeen dàq ma ci ekool ndegem téléphone àgg na ci suñu tuut tànk yi ngir ñu bañ a sàkku xam-xam bu sell fuñ ko war a sàkkoo allahu akbar kii kon kii kon ah, allahu akbar yan na ko yàlla won jub yan na ko yàlla jubal yan na yàlla delloo xolam wallahi keroog bu ko oustaz Samb doon wax ci jàkk ji li ma sentir sama xol mag yàlla rek ko xam ñu ne ñaareelu doom bi mooy koo xamante ne yafaalu bi yumaru bihi wa huwa moom day jëf la ko ñaari wuy juróom yi sant waaye da si ànd ak tayal ak mbañel day ànd ak xol bu ñëgg ànd seeg tayal bu tollu nii yéen a may sant lii yéen a ngi may def lool mais malgré yéen a may sant lii yéen a may def lool mais man daal bu doon <tsk> sama sago daal ñàkk kaa def mooy li ma gënal ñu ne kooku fa haada laa yu jar incha allah ñu ne du am peyor ci loolu muy def la ko ñaari wuy juróom sant ndax dañ ko kaa forcé wala dañ ko kaa sant mu di ko def ci ñàkk pexe wala ñu teg ko karhan ñu teg ko forcé daan boo xamante ne dañ ko noon boo ko deful tey nga dee boo ko defut doo añ boo ko defut duñ la may lii boo ko defut duñ la jox sa téléphone boo ko joxut doo def nii wala loolu nga bëgg duñ la ko jëndal boo ko defut boo ko deful nga di ko def ànd ak sa xol bu ñëgg wala dañ la kaa forcé nga di ko def ñu ne kooku loolu ñu di ko def loo ci am benn payoor ñu ne ñetteelu doom ci juróomi doom yu nit ñi di meññ bokk na ci troisième position mooy yafalu ma yu'maru bihi wa yatata'ahu waaw ñu ne kooku day jëf law xamante ne ñaari wéyjur yi sant nañ ko ngir mu def ko wa yattabaahu bi liman atha wa taafafa wa rafaa sawt fa haada yuzi ñu ne ñetteelu doom bi mooy koo xamante ne buy def la ko ñaari wéyjur yi sant da ci toftal la koy la ci la ci maanaam da ciy toftal coono waaw da ciy toftal coono boole ko loo xamante ne day xeeti xorñoñal ak yëkkatiku baat baat yoo xamante ne kenn waru koo jëmali si ñaari jur ñu ne kooku day lor fa haada yuzi ñu ne kooku day lore a ñu ne kooku day lore ñu ne kooku day lore say waajur ne la defal li nga di ko def waaye nag ah, boole kook loo xamante ni maanaam waaw danga ci am lu mel ni coono say wayjur yi du si coono balaa ñu la koy defloo il faut ñu daj coono bu toll nii la mbuuru di daj ci fuur boole ko ngay funkiloo sa lex di leen xeelu ak li ni mel bu yemee foofu sax mu xaw a tene wa turfau sawt mu ci gën a bon nag boole ko nga di leen wax wax goo xamante ne kenn mënu koo jëmale ci say wayjur walla ñoom it ñu di la yuuxu diw sangam xanaa lu dama ne nga def lii ak li ni mel ñu ne kooku day lor boppam ci loolu muy def da ciy lor ñaari wayjuram da ciy lor boppam amul benn sens amul benn njëriñ waaw wayjur woo xamante ne balaa muy wax dina la topp dina loru dina wàccee boppam dina yëkkati baat boole ko nga di funkiloo sa lex jëmale ko ci moom boole ko di ko xeelu boole ko anam woo xamante ne melokaan yu ñàng balaa ngay jëf loolu ñu la sant balaa ngay def loolu ñu la digal il faut ñu topp la defal lii yaay dinaa ko def defal lii papa dinaa ko def xaaral ma pare waaye yow xanaa du demandé la nga def lii waaw papa xanaa du demandé ne dinaa ko def bu ma pare comme ni ñu ko gisee si jamono waaw ñenn ñi sax dañuy ànd ak seen wuyjur ba seen wuyjur yi di leen neexal ah di leen neexal ngir ñu def la ñu bëgg ñu def ko est-ce que jar na ko allahu akbar sa wuyjur sa wuyjur mu sant la la defal lii mu wax la ko topp la di la ko wax mu am coono bu toll ni nga def ko nga bañ kaa def ba mu mujj ki yow di la neexal di wàccee boppam di suufeel boppam ngir nga def li mu bëgg nga def ko ba mu àgg ko yow mu di la yuuxu di yëkkati baatam yow it ngay yëkkati sa baat di ko jëmale ci moom ngeen àgg foofu ngir def lam la sant est-ce que jar na ko ñu ne kooku fa haada yu zir ñu ne kooku mooy kay loru di loraate day loru ci xolu wayjur bi tàng bu mu tàng ci moom waaye day loru wayjuram ci mer ba mu mer ci xolam ñu ne ñeenteelu doom bi ci juróomi doom ya nekk ci pénc bi mooy kii moom yafalu ma yu'maru bihi bi tiibati nafs fa haada majuur ñu ne kii day def lañ ko sant ci teyu bakkanam bu koy def da ciy sawar bu koy def da ci ànd ak cawarte da koy an da koy def ak sagoom waaw da ci da ciy ànd ak euh, waaw da ciy ànd ak mbégte da ciy dem ba jeex waaw comme ni ko gars di waxee paa bi sant la dara nga dem ba jeex ci loolee mu la sant maire bi sant la dara nga dem ba jeex xale bu jigéen bi maire bi tegal la sumbul la ay póot ni la lii laa bëgg mu set bu fi nekk naan jiinu xale yu góor yi bu fi nekk naan jiinu nangam sangam xale bu góor bi jiinam nii ngay wili pande sutura ya nekk ci yére yiñ la tëralal ne nanga nga sumb fóot bi nga dem toog dind sa kii yu ñuy def ci loxo yi ongul voilà soxna mari bu dee baat bi noonu la dem dind wee yu ñuy pe poose si sa baaraam yi nga dindi lépp waaw nga daal di takk sa sër waaw sol say sol sa sol sa sol sa yëre toog waaw commencement root rangale paan yi ah ku la gis ngay waajal ni ngay foot ñu xam ne kii de lu muy waajal sumb ni lu mu sawar a def la waaw ñu ne kooku fa haada majuur kooku dañ koy fay bu dee xale bu jigéen la kooku yàlla da koy fay bu dee xale bu góor bi la bu dee suñu côté àll bi la waaw góor gi ne la suba matt yu sa yaay doon toggee matt bi jeex na ci waañ bi damal taxani matt takk sareet moo xam fas la wala sareetu mbaam wala sareetu nag ah suba teel jógee koo jàkk waajalal sa bopp daal di takk sareet bi ba mu ne këj ñu ni fooy jëm doo xaar ndékki nga ne dee tegal leen ma sama ndékki ba ma dem taxani matt ma ñëw nga dugg si mat ak côté nga dugg si àll bi taxani matt ay côté sept heures huit balaa dix heures nga andi sa yu matt boo xamante ne dinañ ko toogee pendant deux mois waaw kañ ñu ne kooku doom bi ni mel kooku mooy ka yàlla di fay ndax dafa seral xolu ñaari wuy juróomi moo tax mu ne ñetteelu doom walla ñeenteelu doom yafaalu maa bi bihi kooku day def lañ ko sant bi tiibati nafsin ci teyu bakkanam ñu ne fa haada majuur ñu ne kooku dañ koy fay kooku day fay waxum xaliil hmm? ñu ne ñooñu de hmm? boo koy xool ci xale yi de boo koy lim est-ce que di nga matal limu baaraam est-ce que di nga matal fukk yi waaw ah, est-ce que di matal fukki boo ko doon lim boo ne un trois quatre est-ce que di nga matal cinq bi bay dem ci sixième bi bay am septième bi ak bi dixième bi moom kenn waxatu ko moo tax waa ji ne wa hum qalil ñu mel nii doom yu mel nii doom yu jigéen yu mel nii wala doom yu góor yu mel nii boo ko doon xool ci askan bi dinga fekk ñu néew lool aw kañ allahu akbar yàlla ñu fi yàlla boole ak néewaay bi yàlla ñu yàlla boole si ñooñu ci xale yi nga xamante ne ñoo jël ci quatrième position boroom xam-xam bi mbokk yi fu mu jeexalee tegtal ba muy tegtal ne juróomi doom ñoo nekk ci penc bi juróomeel bi nag mu ne yafaalu maa yuriduhu waaliduhu qabla an yu'maru bihi fa haada huwa baarun waaw juróomeel bi mooy kan mooy koo xamante ne moom day jëf laata ñaari wii juróom yi di ko digal moom day jëf laata ñu di ko wax ne defal moom bu gisee ne paa soxla na li balaa paa bi di ko ne defal moom day jog dem def loolee moom day xool ne maire bi bëgg na li maire bi lii war na soxal mu jóg dem def loolee balaa maire bi di ko ko sant ñu ne kooku mooy koo xamante ne mooy albaarun almuwaffiq wa hum naadiruun nee na ñooñu ñooy ñey àndandoor ak seeni wuyjur ñooñu ñooy nangoo toog ci keppaaru wuyjur yi ñooñu ñooy ña wax ne wa qadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyaahu wa bilwaalidayni ihsaanan ñooñu la yonent bi wax ne birrul waalidayn nangoo toog nangoo nekk ci disposition ñaari wayjur nee na nag waxum naadiruun nee na ñii nag dañoo jafe waaw xam nga nee na quatrième position bi dañoo tuuti waaye nee na juróomeelu position bi nag ñooñu dañoo jafe ah quatrième position bi nee na ñooñu dañoo tuuti ci askan bi mooy ñoo xamante ne bu la seen wuyjur yi sant dara ñu di ko def dañ si ànd ak cawarte dañ si ànd ak euh, ah, dañ si ñàkk sagoo maanaam dañuy dem ba jeex dañ siy taq rib waaw bu dee slogan bi mun nañ ko andi si sens boobu lépp lu leen seen wuyjur sant dañ siy taq rib dañ siy dem ba jeex nee na ñooñu la yàlla di fay waaye ñu mel noonu dañoo tuuti si askan boo ko doon lim doo si am fukk waaye juróomeel bi nag mu yafaalu maa yuriduhu waaliduhu qabla an yu'maru bihi fa huwa fa haada huwa baarun muwaffiqun wa hum naadiruun nee na ñooñu ñooy ñoo xamante ne seen wéyjur laata ñu leen wax ne defal leen ma sama bëgg-bëgg bi ñoom dañuy dox dem def loole gis nga paa bi war naa war a soxla lenn ci yamuy soxla nga jóg defal ko loolu bett ko góor gi saaku ceeb jeex na balaa mu ne ma diw sangam saaku ceeb bi jeex na nga jaal di andi saaku ceeb teg ko xam nga ne meer wi léeg-léeg dina am ña koy ñëw di soxlaam balaa mu la wax ne dëkkandoor yi de xam nañ ne sama doom sangam mu ngi mel nii wala mu ngi occupé bërëb sangam poste sangam te nit ñi dañoo am yaakaar ci man balaa maire bi di la wax ne bàyyi fi li nga xamante ni bu jaami yàlla yi ñëwee dinaa leen mën a compal ci loolee jox leen jëlal enveloppe dem jox maire bi ne ko gànnaayool lii ak li ni mel ak li nuroo nii lii xam nga ni maire bi daanoon na jox mbokku nangam sàkku ceeb te maire bi dem na retraite lu tee nga wuutu maire bi ci loole te maire bi bëgg na muy continuer bëggut muy dagg boo gisee tey mu dagg amaana daa dem retraite mënu koo jëf lu tax nga bañ a wuutu meer bi ci loole te moo ne boo ko fa wuutee mu jël boo ko fa wuutoo mu doon la neex lu tax nga bañ kaa wuutu ci loolu ñiy mel melokaan bi boroom xam-xam bi nee na ñooñu ñooy ñay topp ndigali ñaari wuyjur ñooñu ñooy nangoo nekk ci keppaaru ñaari wuyjur yi ci nu mu gën a rafetee ak nu mu gën a jekkee ñooñu la yàlla tabal garaat bi nga xamante ne mooy ne man yàlla maa santaane bu leen jaamu kenn bu leen jaamu dara ku man yàlla waaye na ngeen rafetal jëmale ko seen ñaari wuyjur yi ñooñu la yonent bi wax ne ñii ñooy ñay nangoo àndandoor ak seen wuyjur ci ni mu gën ak ni mu gën a borom téere bi bindkat bi neena ñooñu nag waxum naadiruun ñooñu dañoo jafe ci askan bi ñeenteeli position beeg juróomeelu position bi yan ñu ko yàlla boolee defal suñuy tu tànk yan nañu yàlla boole si ñooñee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 wa nafaani llahu wa iyaakum bima fihi min al ayati wa dikri al hakim allahuma ihfad biladana min al fitan ma dahara minha wa ma batan allahuma aminna fi awtanina wa aslih aimmatana wa wulata umurina asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu